asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ci yéen ñuy béggee yéen ñi nga xam ci à chaque fois yéen ñuy toog jël seen temps toog ci Facebook bi di ñu béggee di ñu sànni ay message di jëli naar ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ndax gis na message yi ba mu baax a baax ba tey rek di jëli naa di leen wax ni tey ji yéen ñi nga xam ci yéen ñu ma leen béggee ba di ma envoyé seen message yéen ñëpp tey dinaa jàllale seen tour incha allah ci kàttanu yàlla ak ne ñu dañuy jéem te kiw jéem ku ne rek xam ne dafa yàkkamti nga puus ko may ko loxo ba mu mën a dem nee naa da ngay ay artiste la bañ ñu dara lu ñu jox ñu jël te seen barke rek la ñuy taasantoo kon ba tey ñu demaat ba ci ci kanam ak Karomino jaajëf waay ni li dem démb la te démb mo xam nga rek moom mooy lépp waaw nee naa la ba tey ngeen xam ci yéen ñu doon baaxoo di ñu def li di ñu envoyé seen message ko ci mel ni Adja Ndour yow mi nga xam ci yaa ngi dëkk fii ba Ndar sa message bi ak ci na macha allah Maguette Fall bu daara mos gis nañu loolu nice na trop Maguette Fall ki nga xam ci moom mooy Ndeye Fatou sek macha allah sa message bi ak ci na Fall Mbacke bu nga xam ci moom moo nekk fii ci Nguma Ngéwul sa message ak ci na Ibrahima Diop sa message ak ci na Abdoulaye Sall sa message ak ci na macha allah Abdoulaye yéen tamit cassette bi maa ngi leen koy may yéen ñëpp bu baax a baax ki nga xam ci moom mooy Euh, Mbacke Dieng bu bàyyi àll nee naa la yow Mbacke saa suñu dee wax ci yow duñ fi jóg fii ba suba fii rek la ñuy toog ndaxte nee la lépp luy caméra yaa ko def macha allah li nga xam ci lumière la yow yaa ñu ko jox yaa ñu jox micro yu baax yi rallonge bi yëpp yaa ñu ko jox kon Mbacke macha allah yaa ngi jàpp ci combat bu baax a baax jëlal lii yaay boroom Alioune Badara si biir xol lay dugg daal di jaar doxantoo fa tuuti lépp loo xam ci dala métti wala lu lay gaañ la danaa ñëw dugg ak samay musique ancienne musique ba tey ak tey ak démb yëpp boole di leen wax rek ni macha allah kon ba tey rek ki maa ngi lay bégge bu baax a baax xam ci moom mooy général CFA maa ngi lay bégge bu baax a baax euh, Bamba Abdou Dieng maa ngi lay bégge bu baax a baax di wax tamit ki nga xam mooy El Hadj Guèye ñu bokkoon benn école benn classe di camarade muy sama camarade boo xam ci yàgg na macha allah Abdoulaye El a baax yow mi nekk ba Ndar message bi abdoul ibnu cheikh sadiq du courage lañu wax machallah boy ka fi ba maroc machallah abdou karim machallah abdoulaye kare yo mi xam ci grand nga grand bo xam ci grand bu baakha baax en même temps chef de médecin ngay fajj kep ko xam ci moy walu dam dam wala dara yang ngoy fajj ci côté bobu ki nga xam ci mom moy nogay nenañu bonne continuation ko di sama chéri nogay machallah khadim jeng khadim jam ñong lay bu baakha baax di la gëreum dj capitaine yow mi nek fi ba pal ñong lay bu baakha baax di la gëreum ki nga xam ci mom moy atta jagne machallah fi ba saint louis cheikh amar bu Daaru Musti ñoo lay gërëm ki nga xam ci moom mooy Faga yi nekk fii ba Canada ñoo lay gërëm bu baax a baax sama message agsi na son bi yëpp man may a baax Abdou Dieng kontaan nañu kon di wax message a jeexee noonu yéen ñi envoyé sa message daañu ko lire daañu ko béggee bu baax a baax di la wax ni rek ni kontaan nañ ci bu baax a baax te buñu sañu nit muy gën di yokk di neex ba di leen wax rek ni yéen ñi nga xam ci yéen a noonu samay lii ngeen xanaa neex <laughs> Thank you. jaral ngeen ma lu ne ndax yeen yéen nga xam ci nga mako jaral ba mu jaral ngeen di dugg ci facebook bi di ñu jox seen message ba tay ma leen di wax rek leen da ngeen di jaar youtube bu ko defé ngeen tapé geewul ar geewul ar dañ ko bind sekkolee bu ko defé ngeen abonné ci ñu chaîne rek soxla nañu ko lol lol lol bu ngeen abonné ci chaîne ngeen laal euh, cloche de notification bi comme ça lepp lu ñu dugg rek day ak si ñeen direct day bax trop ci ñun xolal li ngeen ma jaral déglu leen li ay waa naa la ndaanaan yombul de ku ci am pël bu rafet macha allah sa ndaanaan lay doon xoolal kooku maa ngi dikk ci moom tuuti yàggatul dara kooku ndaanaan pire la kooku mooy garmi moom mooy lépp <laughs> moom mooy Matar Sall nekk fii ba école ba di enseigner di jàngal xale yu jaw lu baax a baax kooku nee na ndaanaan la ki nga xam ne ci moom mooy Thierno Diaw ndaanaan la Abdoulaye Diagne ndaanaan la Mahiri Seck ndaanaan la Maysa Niang ndaanaan la yéen ñëpp ay ndaanaan ngeen ah waaye nag sama pël bu rafet dama ni duutal sa baaraam tuuti maa ngi ñëw ndax li ma bëgg a wax ci yow dafa bari <laughs> dara pour bu rafet da nga nek ci sab jamono nek ci sab temps di dag lu bax di def lu jago tok ne na la tay fi ñu tok ni décoration bi yow ya koy def yow mi nga xam ci à chaque fois bu ñu soxlo changement wala dara da ngay dem tok ci atelier xef sa création ñëw tegal ñu ne na la dijë yow ne na la tayer nga tayer bo xam ci macha allah rek la lay wax sa loxo bi yàlla nako yalla wéral jam ak jam di wax ki nga xam ci momay sama peul bu rafet belal belal belal belal chérikaan mariama jëlal li yeb yaay borom

à la mairie de Guéoul. Le berger a pour mission principalement de faciliter l'interception professionnelle des jeunes, des femmes et des immigrés. Le travail de la mairie, ça c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. voilà may wax rek la mairie eh, dafa suis partenariat avec euh, les

Thiès xanaa neex moo tax ma ne dox li yërey borom xanaa neex ak Thiès xoolal li ñuy def di animé rek tey dinaa la wax loolu loolu garaaw a garaaw loo ci wax dañ ciy joxe ay leçons de civisme citoyenneté pour yow mi nga xam ci yaay toog di ñuy baaxee di ñuy ko wax te mënoo ma ko wax bindal ko def ko message jàllale ko ci biir bu ko defee man man naa ko jàllalee ndaxte sama xarit nga yow mi jàkkaarloog man di jël sa temps bu baax a baax di ma lire mu yow sama ami Facebook béggee naa la bu baax a baax ndaxte bu la nit ñi doon def fii ci kaw man fii laa def ci sama biir xol bi ba tax na dama naa la xoola na rek nee naa la dañuy delu wat fenen fudul fi nee naa la man tay mooma ñor te ndaran gi faw ma dugal ko te kep ku def lu bax ndanan nga ne nala la belal ndanan la malik ndanan la amen bojit ndanan la ndanan lu ndanan yi ki nga xamni ci mom moy mbooj neena mom fim tolli ma sha allah lepp lu ñuy def mi ngi koy and ak ñun diko bege béggee mbàkke jeng ndaanaan nga sura mansur yow mom lay waxal sura njaay ndanan nga kep ku yewu ngu ma ngeewul ndanan nga ndanan dal moy kan ki bëgg lu bax bëgg bopam bëgg bëgg ki nga xam ci mom moy mbokam ubbi leen xol yi yaatal ko bu baax a baax saa soo ko defee rek moom mooy daan naan ba tax na dama naan leen xolal Dieng doomu Baye Fallou Dieng macha allah tey ji dafa def lu rëy rëy ñun nee naa la ku def lu rëy rek ñu wax la ko Aziz maa ngi lay nuyu di la bëggee bu baax a baax ndaxte yow yaa moom lii jël lii ma am. lenn te duma ko jëm ndax ki nga xam ci moom moo ñu jox caméra yi bu baax a baax kooku mooy kan Heidi Peterson nekk ba États-Unis d'Amérique doon ay partenaire ak ñun Heidi Peterson nee naa la dama lay bëggee fu ma toll di la bëggee fu ma toll I love you to you yeah bu nuyul ma waa États-Unis bu baax a baax yes ay di jëlal lii xam naa nag doo ko dégg bu baax a baax mais jëlal ñu dem bu ma ñëwee dama leen di mosal tuuti rek daal di dem ñu a yaatu ñun ñëpp ñu bokk ci émission bi bu ñu mënee sax di leen invité ngeen di ñëw suñu plateau te ñu defal ay émission dafa ñuy neex ñu tax a jóg lépp luy doxal a def ndax ci ñun li def ñi dañoo bëgg géewul jéem ca kanam ñi nga xam ci ñoom ñoo nekk ci biti ci bitim réew émission ci yeneen anam prochaine fois damay bëgg ñuy waxtaane lu baax a baax ba tax rek dama leen di wax ni dem leen ñu ngeen doxantoog ñun YouTube bu ko defee ngeen tàppee Géewul Art bu ngeen tàppee Géewul Art ngeen abonné suñu chaîne bi parce que dañ koy soxla lool ngeen laal ci nu cloche euh, notification bi comme ça da ngeen a am suñu yëpp ma leen di wax peace and love ba beneen yoon.